السلام عليكم ورحمة الله بوكي نيو لين نيو دي لين زيار نين بالو حق لين بال نيان برامي سبحانه وتعالى مبالي نيو جاگل نيو دروس رمضانيه الرقم السابعة أن يشترط لوجوب الصوم العقل لا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه بالإجماع الله أعلى وأعلم من مكور انتي juróom-ñaareelu numéro bi bokk na ci charte na ci charte yi koor ki koy def mu doon ko ànd ak sagoom kon ku tàggalikoo ak sagom koor wàcc na ko waaye su wéree day fay li weesu yàlla moo ci lépp koor ki koy def dafay doon koo xam ni day wér mooy xel lu fii bépp jaamu yàlla bu ñu farataal ci jullit bi bu fa xel nekkatul rek jaamu yàlla boobu teggil nañ ko ko bu fekkee ne lu mel ni koor la jullit bi bu tàggali koog sagoom moo xam dafa xam wàcc na ko ci période wala muy crise wàcc na ko wala muy jommi xel newu fa wàcc na ko wala muy def opération jamono jiñ koy eh, def di ñuy tuddee anesthésie koor wàcc na ko waaye bu demee ba xel ñëwaat foofu wala mu nekk dans le comment di nelaw diggante bi muy nelaw yëpp koor wàcc na ko bu demee ba sago wi jàll si nag day fay koor googu bu dee benn fan la da koy fay bu dee ñaar da koy bu dee ñett la bu dee ñeent la da koy fay bu dee koo xam ne dafa tàggale wook sago aw aw at at moomu koor gi weesu bu xelam dellu see da koy fay wuuteeg julli nag bu dee julli nag moom du ko fay loolu mooy suñu bindum tey أن يلهو الدقاق توفيق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته